wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu fu fi waay mën a nekk moo xam ñi teew ci jataay bi la wala ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy topp ci seen seen bii ñuy wax Touba Vision ak ci yeneen sit yépp fu fi waay mën a nekk ñu ngi koy nuyu nuyoo bi gën a sell di leen ziyaare bu baax a baax ci weer wu tedd wi ñu nekk rawatina ci fan yu tedd yi di fukki fan yu mujj yi di jiital ci nuyoo bi ak ziyaare bi fadilatu cheikh muhammadinul muntaqa alxalifatul am li taifa al muridiya di ñaan sunu borom tabaraka wa taala sàmm ko gën koo kàttanal ba limu mu naalal lislaam yépp mu mën koo mottali ci sagoom dañu ñu ànd ko ak moom di ndokkeel ñëpp ci fan yu mujj yi nga xam ne mooy al ashratul awaaxir min ramadan di bis yu tedd yoo xamante ne bi yonente bi sallallahu alayhi wa na ko lool daa ci laxasaayu di yokk ay jaamu yàllaam waaye daa ci soññee bu baax a baax tamit ñoo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa ci ngëneelam ak mbaaxam mu dajee ñu ak ngëneel yi ci nekk yépp musal ñu ci mboolem xeetu mbas yi nga xam ne am na ci daraje yi fukki fan yu mujj yi del siwaat nañ tey ci daaray kaamil ni ñu ko baaxoo def bés bu set ba weer wi tàmbalee ba léegi di def ay waxtaan di dundal weer wi waaye di fàttali te di fàttalante ak nit ñi ci lu jëm ci wàllu diine ak lu jëm ci njàngalam seexul xadiim booba ba léegi ñu ngi woon ci waxtaan yooyu di ci def ay tong yu am solo ubbi woon ci ay bunt yu am solo te bunt yi ca ëppoon jëmoon ci wàllu tasawuf muy leeral téereb masaalikul jinaan ak xoqal bukaa tey nag ñu ñëwaat indiwaat benn tomb boo xamante ne bii dañoo toll ci waxtoom muy tomb bu am solo boo xamante ne bii dafay dugg ci al infaq fi sabilillah xam ngeen ne sunu borom tabaraka wa taala moo bind doomu aadama yi bind mbindeef yi waaye bi leen bindee ba noppi nag wërsam daf ko séddale kii mu jox ko lu bari kii mu jox ko lu yam kii joxu ko dara ahum yaqsimuuna rahmata rabbika nahnu qasamna baynahum maishatahum fi lxayaati dunya wa rafana baadahum fawqa baadin darajatin li yettaxisa baaduhum baadan zuxriya kon gis nga ne sunu borom moo séddale wërsëg yi ñii mu jox leen ñu am bañ ne ba ngiijal ñenn ñi mu jox leen tuuti ñenn ñi joxu leen dara moo tax sunu borom tabaraka wa bi mu defee loolu mu gën a jox yitte nag al fuqara masaakiin jox leen yitte lool ngir bëgg ñim jox lu bare bare bari ñu bàyyi leen xel moo tax wàllu infaq fi sabilillah bu ñu xoolee alxuraan sunu borom daf ko fonk lool ngir bëgg ñi nga xamante ni bi ñoom la jox alal ju bari ñu bàyyi xel ñi nga xamante ni bi seen loxo jotul seen gannaaw moo tax bu ñu xoolee ci biir alxuraan dañuy gis aaya yu bari loo xam ne mat na juróom-ñaar fukki aaya ak ñett yoo xam ne day soññee ci ñi nga xamante ne bi am nañ lu baree bari ñuy geestu ñi nga xam ne amuñ yaa ayuha alladina amanu anfiqu min tayibaati ma kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ardi wala tayammamu alxabisa minhu tunfiquuna sunu boroom foofu mi ngi digle ñuy financer di dépasser li nga xamante ne bi moom lañu ñu sunu boroom jox ci ay alal ñu génnee ko ngir jox ko ñi nga xamante ne bi ñoo ñàkk muy aaya yu bari yoo xamante ne bi buñ ko xoolee sunu borom daf ciy soññee ci ñuy joxe waaye yëmut ci loolu ngir ñu dimbali ñi ñàkk sunu borom teg na ay yoon yu baree baree bari yoo xamante ne bi am na ci benn yoon bu am solo boo xam ne sëriñ Xaadim la docteur waxtaanee na ko fi muy al waqf bokk ci mécanisme yi nga xam ne moom la lislaam teg ngir xeex ak ñàkk ngir dindi fi ak ñàkk waaye bokk na ci mécanisme yooyu nga xam ne lislaam teg na ko tamit ngir dindi fi ak ñàkk mooy az zakat muy tomb bu am solo boo xamante ne bii zakatul fitri bii ñuy bëgg a waxtaanee ci loolu la bokk kon loolu lépp li muy wane rek mooy lislaam ñi seen loxo jotul seen gannaaw daf leen a yittewoo lool di soññ ñi nga xamante ne bii amuñ am nañ lu bari ñuy génne ca lañ am di jox ñi amut moo tax ci alxuraan sax boo koy jàng da ngay gis ne sunu borom tabaaraka wa ci kafaaraat yi yu ci ëpp. néewaan a kafaara bu muy bu ñuy tudd te leel miskin yi bokk ci boo xooleel ci wàllu giñ kafaaraam leel miskin yi ca la bokk ci wàllu zihaar kafaaraam leel miskin yi ca la bokk ci boo demee màkka ca xorom ba nga rey fa loo xamante ni bii su dañ laa tere woon nga rey ko kafaaraam leel miskin yi ca la bokk kon loolu lépp day wane ne sunu boroom miskin yi ak fuqaraa yi ñu ko yitteel la ba tax na teg na ay mécanisme yu baree bare baree bari yoo xamante ne bii lépp day xeex ak ñàkk lépp dafay jëlee ak ñàkk loolu nag bokk na ci tomb bii nga xamante ne bii moom lañu ñu war a waxtaane tey te mooy zakatul fitre di muurum koor doon loo xamante ni bii dañoo toll ci waxtoom sëriñ Souleymane Badiane bi ku ñu xam ci jàng ak jàngale xam ko fii ci barab bi ci waxtaan yu am solo yi nga xamante ne bii doon na ko fi def mu ma ñu ko fas yéene defal incha allahu taala muy kon tomb boo xamante ne bii dana ci ñëw leeral lan mooy asakay muurum koor kañ lay war wala kañ lañ ko farataal ci jullit ñi mu leeral ko wax tamit kañ lay war jullit bi wax tamit ban jullit lay war ak jullit bi mu war bu demee ba koy génnee nan la koy génnee ak kañ la koy génnee ak bu ko génnee ba noppi ñan la koy jox incha allahu tabaraka wa taala tomb yooyu yépp sëriñ Souleymane Badiane danañ ci ñëw leeral ñu ko ba mu leer nañ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 wasalaatu wasalaamu ala rasulihi almustafa wa alihi wa sahbihi wa man istafa mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi leen di nuyuwaat nuyoob lislaam bi ci barab bu màgg bii di daaray kaamil ci weeru màgg wi di weeru koor ak fanam yu mujj yi di ndokkeelaat ñëpp di ñaan suñu borom boole ñu nangul te defal ko bépp jullit barkeb alquranul karim ni ko sëriñ Bachir waxe bunt bi ñu ubbi tey ci fiqh mooy zakatul fitr asakay muurum koor dañ koy tuddee sadaqatul fitr wala zakatul fitr wala zakatul abdaan lu ci ne boroom xam-xam yi dañ ko koy wooye ñu am yéene leeral lan mooy sadaqatul fitr ak lan mooy àtteem ci lislaam kañ la ko lislaam yoonal ak kan lañ ko sant kañ la koy génnee bu ko génnee ci yan loxo la koy teg loolu mooy tomb yi ñu war a leeral ci gàttal zakatul fitre atteem ci lislaam li gën a dëgër gën a wér ci waxi boroom xam-xam yi mooy farata la am na ñuy wax ne sunna la waaye li gën a wóor mooy farata la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko farataal ci xeetam wi ndax xam ngeen ne lislaam bépp àtte bu muy saxal dañ koy jëlee ci alquranul karim mooy jëlekaay bu njëkk ba mooy balluwaay bi jiitu ba ca topp mooy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam azakay murum koor nag sunna si yonent bi ay waxam ak jëfam moo ñu xamal ne farata ñu taxaw ci tomb bi tuuti ndax dañoo nekk ci jamono ju doy waar jamonoy xalaat ak ngir yu wuute yu tasaaroo ba ci sunu réew mi ba jamono ji tembe ñi ngi dégg ay nit yuy wax ne azakay muurum koor bokkul ci lislaam du farata du sunna luñ ci boole la rek ñii wax loolu nag tur wi ñu leen mën a tuddee mooy ay quraani yuun lañ quraani yuun ci ku leen xamul ay nit lañ ñoo xam ne dañoo weddi sunna si yonante bi sallallahu alayhi lépp ñoom dañoo gëm ne diine yëpp ci alquran lañ ko war a jëlee nanguwuñ benn xadiis ndax ne nañ yonent bi yàlla da ko yónni jox ko alquran te alquran lépp mat na lépp leer na soxlawul ku koy leeral ah, loolu nag bu fekkoon ne bu doon yàlla dafa wàccee alquran ñëpp jël jaarale ko ci kenn kon de comme neex nga ne alquran mooy diine ji loo ci fekkul rek amoo ci soxla waaye yàlla bi muy wàcce alquran dafa tànn ndawam lu mat sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ko ko li ñëw ci alquran yépp yonent bi leeral ko ci ay waxam ak ay jëfam jàngal ko ay saxaabaam ñoom it ñu jàngalewaat ko xeet wi di ko jàngalante ba tey te am xàqu war koo jàngalewante ba ilaa yawmi diin moo tax bëri na lool ci lislaam lu nit di jëfee te bu yemoon ci alquran bañ dellu ci sunna dëgg-dëgg du ko def wala bu ko bëggee defit du xam nu mu koy defee julli mii nga xam ne moo gën a farataw kenn jàngut ci alquran mu wax la ne julli tisbaar ñeenti ràkk la wala julli timis ñetti ràkk la julli suba ñaari ràkk la ak julli gii da nga koy biral bii danga koy yalu boo ruqooxee lii ngay wax ci julli booy siggi ci ruqoox lii ngay wax boo sujjoodee lii ngay wax boo toogee di taaya loolu kenn jàngut ko ci alxuraan moo tax kenn mënta jël diine bàyyi fi sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yonentu moo ko leeral eh, quraan yuun yooyu nag rawat na ñi féetewoo Sénégal te commencé yaatu ci réew mi ba ci gox yu jege lool barab bi ñoom yegg nañ ci bu ñuy julli tisbaar tàkkusaan timis gee suba yépp ñaari rakk lañ koy def du ñuy julli ñeent rakk ndax ne nañ amul ci lislaam dañuy ta taawil rek benn aaya ci alquran wala qad aataynaaka sab'an min al masaani ñu ne masaani mooy ñaar ñaar kon julli yépp ñaar la war a doon te ñoom ñii wax loolu buñ leen fekk si woon ci wax jooju nangul leen ko du tee danañ dese laaj yuñ mënta tontu. mooy bu ñu rukkoonee ci julli lan la ñuy wax ku leen ko jàngal ak bu ñu toogee di taaya loolu mënuñ koo jëlee ci alxuraan kon li ñu bëgg wax foofu rek mooy sunna dafa bokk ci diine ji alxuraan ak sunna day ñaar yoo xam ne kenn mënut leen a tàqale kenn mënta xam alxuraan jëfee ko te delluwoo ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam loolu benn la ñaareel bi ñoom ñooñu di weddi sunna wax ne dañuy doyloo alxuraan dafa am laaj bu ñu war a tontu. mooy alquran jii ñu wax ne moom lañ doyloo ku leen wax ne ci yàlla la bàyyi ko ñu def ba xam ko yonant bi alquran dafa wàcc moom mu jàngal ko saxaaba yi saxaaba yooyu ñoo ko sonne wattu ko bind ko jàngalewaat ko ba mu man ba mu xeet bi yépp mën cee jot tey ñoom ña la jox alquran ñoo la jox sunna léegi bu fekkee jàpp nga ne ñii ay soskat lañ sosal nañ yonent bi indi nañ ay xadis te loolu bokkut ci diine ji kon kay lañ lay bàyyeekoo ñoom dangaa war a delloo lépp waaye amoo benn sañ-sañu di jël lañ la wax ne mooy alxuraan lañ la wax ne mooy sunna nga ne da leen koy delloo moom kay da war a jël lépp rek wala nga delloo lépp kon lu am solo la ñu xam ne bari na ci lislaam lu jullit ñi jëfee tey jullit yépp nag kenn muccut ci te ci sunna si yoon bi lañ ko jëlee zakatul fitri ci la bokk moo tax boroom xam-xam yi bu ñu koy jàngale Euh, dañuy dellu ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu demee ci muwatta imaam Malik kitaabu zakat ci muwatta bii gën a tasaaroo ànd ak imam imaam suyuti tanwirul xawaalik boo demee ci qatum 333 da ngay fekk imaam Malik wax ne tajibu zakatul fitri ala ahli albaadiyati kama tajibu ala ahli alqura wa dalika anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam faradaha wala farada zakat al fitri min ramadana ala annaas ala kulli xurrin aw abdin dakarin aw unsa min al muslimin imaam Malik ne na zakatul fitri azakay muurum koor mooy lu war la te ñépp la war ñi dëkk ci kaw gi ak ñi dëkkee ci teeru yi li waral mu war nee na yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko farataal ci weeru koor ci ñan ala naasi ci nit ñi ñan min kulli xurrin aw abdin zakarin aw unsa bépp gor bépp jaam góor jigéen minal muslimin na doon ab jullit rek kon képp koo xam ne jullit nga yaa xam góor nga wala jigéen nga mag nga wala ndaw nga azakay murum koor farat la joo xam ne tegu na ci saw loos te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ko farataal ci aw xeetam ba tey ci muwatta imaam malik indi xadis boo xam ne mi ngi ko jëlee ci sëriñam naafi naafi jëlee ci sëriñam kilifaam ibnu omar radiallahu anhum ajmain mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu omar mooy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farada zakat al fitri min ramadana ala annaas saa min tamrin aw saa'an min sha'irin ala kulli xurrin aw abdin zakarin aw unsa min al muslimin mu ne yonent bi farataal na azakay murum koor ci nit ñi wax na muy toll muy saa ci yañ daan dunde mu tudd fii tàndarma ak sha'ir waaye ci ñan la ko farataal mooy bépp gor bépp jaam góor ak jigéen ci jullit ñépp kon li ñuy jànge fii rek te buñ delloo ci téere feq yi it boo demee ci téere bu mel ni risaala ibnu abi zeydin xayrawaani wala ashalul masalik téere bi gën a siiw ci turu misbaaxu saalik wala nga dem ci aqrabul masalik wala muxtasaru xalil ak téere fiq yiñ miin ba ci ibnu ashir da ngay fekk ñoom ñàpp ñooy la zakatul fitri farata la yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ci xeetam bi tax lu bari ci borom xam yi wax nañ ne ku weddi ne zakaatul fitri du farata danga weddi lu sax ci lislaam bi darura maanaam loolu dalay génne ci diine am na wax nag ne ku ko weddi du tax mu génne la ci diine ngir sàmmwante wuute bi ca am wuute bi mooy ñi wax ne sunna bu dëgër la waaye yeggul ci farata kon ñun dañuy jàpp ne zakaatul fitri farata la kan moo ko farataal sallallahu alayhi wa sallam ci xeetam wi yépp képp kuy dund di jullit mag wala ndaw góor wala jigéen gor wala jaam woor nga walla wóoroo muurum koor farat la ci yow benn loolu mooy tomb bu njëkk bi ñaareel bi sax zakatul fitri kañ lañ ko farataal mooy atum ñaareel ci gàddaay gi xam ngeen ne lislaam diine la joo xam ne yàlla da ko wàccee ci diirub ñaar fukkiyaat ak ñett muy ñëw ay àtte par ay àtte euh, bi yonent bi gàddaayee dem Madina ca atum ñaareel ma at la mu ràññeeku yu bari ci lislaam ci lañ ko farataal bokk na ci jihaad waaye bokk na ci woor weeru koor ñu ko farataal ci atum ñaareel ci gàddaay gi ci at moomu lañ farataal zakatul fitri ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxee waaye ci at moomu lañ sunnaal salaatul iidayni julli korite ak julli tabaski ci at moomu lañ farataal azaka mutlaqan azaka ju mag ji nga xam ne moom la alquran di jàngale ma sadaqaatu lil fuqaraai wal masakin xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha ñu ngi ko farataal yooyu yëpp ci atum ñaareel ci gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon wax nañ ko ci xadis biñ jàng léegi muurum koor azaka la ci bépp jullit maanaam azaka la joo xam ne yonent bi da ko farataal ci bépp jullit farata la ci bépp jullit jullit bi nga xam ne kallaf la te amul benn ngànt moo ko war a génneel boppam rawat na boroom ak njaboot la yaa koy génnee génneel ko képp koo xam ne yaa ko yilif war koo dundal te ñi nga xam ne yaa leen war a dundal lislaam diine waral ko ci yow bokk na ci sa soxna yaa ko war a génneel murum koor say doom li feeg bu dee doom yu góor mataguñ mu kallaf amuñ benn ngànt buy eh, tee ñu mën a yor seen bopp doom bu demee ba mat mu kallaf te amul benn ngànt buy tee mu mën a liggéey mën a yor boppam dundal ko waratul la bu fa yeggee nag eh, maanaam feeg yeggul foofa yow yaa ko war a dundal yaa ko war a génnee murum koor naka noon sa doom bu jigéen li fekk amul boroom kër ba dugg ci loxo yi boroom këram yaa ko war a dundal yaa ko war a génneel muurum koor naka noonu sa ñaari wayjur yoo xam ne dañoo néew doole mënuluñ seen bopp yow doom ji ko man yaa leen war a dundal yaa leen war a génneel muurum koor kon daal bépp jullit boo xam ne mukallaf la rawat na yilif na ak njaboot na bàyyi xel ne muurum koor farat la ci moom na ko génneel boppam génneel ko ay way wayjuram bu dee dañoo néew doole te ñu ngi dund génneel ko ay doomam yoo xam ne yor mënaguñoo yor seen bopp bu dee doom yu jigéen ya amaguñ borom kër yu leen yor ca ba jaam di amit ku am ay jaam ak nuñ mën a toll yaa leen war a génneel muurum koor naka noonu sax euh, say liggéeykat ay mbindaan yoo xam ne dañoo nekk ci say kër wala say jarbaat ak say rakk ñoo xam ne comme ni réew mi aadawoo yaa leen yor seen kër di leen dundal donte seen dund warul la boo leen mënee dimbalee génneel leen murumkoor koor comme na leen di dund leen loola mooy li gën boo ko defulit nga leeral seeni way jur ak seeni kilifa ya nga xam ne ñoo leen ko war a génneel ñu bañ a nekk bay na bay na ci diggante bi ñële yaakaar ne yow yaa ngi leen di génneel murum koor yow it nga yaakaar ne ñu ngi leen di génneel fële ñu ne ci diggante bi ba ba kenn du leen ko génneel kon asakay murum koor bépp jullit boo xam ne yaa ngi dund jeexug weeru koor fekk la ci kaw suuf jërul laaj ñaata at la am ak fu mu nekk comme jullit la rek daañ ko génneel mburum koor kan moo ko koy génneel wax nañ ko mu kalaf mu ko man yaa ko war génneel sa bopp boo amee njaboot say doom say soxna sa ñaari wayjur bu dee dañoo néew doole say jaam ca ba jaam di am génneel leen mburum koor loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci xadis boobu ibnu omar nettali waaye uh, abu said al xudri radiallahu anhu moom it nettali ko ñu xamee ko noonu kañ la muurum koor di war mooy saa weeru koor jeexee woor nañ ba am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent séentu nañ gis ne weer feeñ na muurum koor mooy soow jant ci bés bi mujj ci ramadaan suba lañu war a kori booba la muurum koor di war loolu mooy wax ji gën a siiw di wax ji gën a wér doonte am na beneen waxta mooy bu ñu demee ba fajar di xar ci la murum koor door a war kon ab wuute la ci diggante fuqahaaw yi rawat na fuqahaawul mazhab al maliki euh, waru murum koor li gën a dëgër gën a wér daal mooy bés biñ mujj woor ñaar fukk ak juróom-ñeent séentu nañ ba gis weer wi tey lañ mujj woor jant jant sono rek ci la azakay muurum koor war bu dee ñaar fukk ak juróom-ñeent eh, weer feeñul dañoo war a mottali fanweer it bu ñu wooree ba fanweer fan bi geex jant soo ci la azakay muurum koor door a war am ñu ne déedéet dañuy dem ba fajar xar loolu nag day mel ni wuute bu ñàkk solo waaye wuute bu am solo la wuute baa ngi feeñee ci ku judd woon ci diggante eh, ginnaaw jant soo ba fajar di jot ku judd ci diggante boobu ñi wax ne ma nga war ca ba jant sooyee kon ku judd gannaaw timis kenn du la génneel murum koor ndax ba muy war fekkut la ci kaw suuf yow ku faatu woon ci diggante boobu it koo xam ne ginnaaw timis ba fajar diggante boobu ci la yàlla dogal nga faatu euh, ñi wax ne azakay murum koor mi ngi war ca soowu jant danañ la ko génneel ndax war na la nga door a faatu te boo ñëwee ci ñi wax ne xaruk fajar ga lay door a waree kon ñi faatu woon ginnaaw timis fekk euh, fajar jotagul kenn du leen génneel murum koor ndax faatu nañ njëkk muy war waaye ñi juddu gannaaw timis nag dañ leen koy génneel ndax bi muy war te mooy xaru fajar gi fekk na leen fi kon wuute bu am solo la bu mat a bàyyi xel la li gën a dëgër nag ñu jàpp ko mooy ba jant sooy rek ci la azakay murum koor war waxtu woowu la war waaye kañ nga koy génnee imaam Malik nettali na ci Muwatta ibnu omar radiallahu anhu daana génne azakay murum koor ñetti fan wala ñaari fan balaa ñuy wari waaye nag daawu ko joxe da ko daan génnee booba lislaam ñi ngi organisé lu ne di tegu fa mu war a tegu dañuy dajale murum koor yépp teg ko ci loxo yu wóor ibnu omar daana ko jiital ñaari fan wala ñetti fan mu dem ca koy dajale kooku nag dana ko téye ba waxtu joxe wa te mooy waxtu wi ñu wax ne ci la war soow jant ci bés bu mujj ba wala fenku fajar mu door ko jox ñam koy jox waaye dëgg-dëgg waxtoom mooy saa boo xamee ne fajar gi xar na ba bët di set ba nit ñi di dem ca jullikaayu ayit ba diggante boobu boo ko fi mën a génnee man boo ko fi mënee joxe mooy li gën génne gi moom bu la neexee teel koo waajal teg waaye joxe gi gannaaw fajar ci bisu ayit bi balaa ngay dem ci jullikaay ba joxe ko ci diggante boobu mooy waxtoom am na ñu wax ne boo ko jiitulee bésu ay des na benn fan ak ñaari fan ñetti fan nga jiital ko ba tey baax na am na ñu wax loolu waaye lay cosaan daal mooy bàyyi ba suba teelu bésu ayit fajar jot na te demaguñ ci julleekaay ba nga génn joxe ko foofa muurum koor nag ci lan lañ koy génnee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax mooy dund lañ daan dundee ca jamono yooyee la ca gënoon a feeñ li ëppoon ca lañuy dundee mooy tàndarma mooy peppu sha'ir moo tax ci xadis tudd na ñaar yooyu waaye ci xadisu abu saïd al xudri moom tudd na kunna kunna nuxriju zakat al fitri saa min taam aw saan min sha'ir aw saan min tamr aw saan min aqit aw saan min zabib wa dalika bi saai nabii sallallahu alayhi wa sallam nee na kunnaa daan nañ def bu saaba yi waxee kunnaa li muy tekk mooy lañ daan def ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu moo leen ko digal ñu def ko wala def nañ ko yonentu yëg ko iqraar leen bàyyi leen ci daan nañ génnee zakatul fitri mu doon saa ci aw ñam aw ñam nag bàyyiwul dara moo tax yim tuddaat ginnaaw gi yépp day firi taam rek ndax yi mu tuddaat muy muy pepp sha'ir wala tàndarma wala raisin fromage ak yu mel noonu euh, day firi ñam waaye ñam lu yaatu la moo tax bu doon suñ jamonoy tey ji ñam yi ñuy dundee ci suñu réew mi yaakaar naa ne la ci gën a bari mooy mooy ceeb wala dugub ci yenn gox yi wala lu mel ni ñebe ci yenn gox yi kon daal ñam wi nga xam ne moom mooy li gën a bari ci la ñuy dundee ci barab ba nga nekk booy génnee murum koor ci ñam woowu nga koy joxe loolu nag euh, du lu ñuy tënk ci ceeb rek am na ñoo xam ne la ñuy dundee ak ndawala ci ëpp ci la ñuy génnee murum koor am na ñoo xam ne li ñuy dundee ñebee ci gën a bari wala dugub ay cere lañuy ñuy jëfandikoo laax ak ay fonde yooyu di bàyyeekoo ci dugub ci loola la ñuy génnee murum koor muy dugub wala ceeb a gën a bari seen dund wala mboq wala leneen lu mën a doon ci loola lañuy ñuy génnee muurum koor euh, bu dee ceeb bi dugub ji ñebbe ji ndawal gi naka lay toll nañu jël rek misaal ceeb wala dugub ndax ñiy joxe ñam yépp mooy li ëpp ci li ñuy joxe ñenn ñi danañ ko nattale ci ñaari kilo walla ñaari kilo nangam walla kilo nangam waaye dëgg-dëgg nattukaay boobu mat naa xoolaat ndax muurum koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy génnee dafa tibb ñaari loxoom ba mu fees te moom yàlla da ko bindoon mu doon digg bi nit kenn du ko melal ci ak tuuti wala ci ak rëy moo tax ci la boroom xam-xam yi jëlee kon ne ñaari loxo yoo xam ne loxo yu digg doomu la tàllaluñ tàllalu gu ëpp banku wuñ banku gu ëpp dañoo yem rek ne ci diggante bi buñ tibbee ba fees loolu mooy benn mudd nga tibbaat muy ñaari mudd tibbaat muy ñetti mudd boo tibbee ñeent loolu mooy benn saax saax boobu moom lañuy génneel bopp bu nekk moom la boroom kër gi di génneel boppam génneel ko njaboot njaboot gi mu ko war a génneel yépp léegi nag ku ne xam na ne boo tibboon sa ñaari loxo ceeb ba fees nga sotti ñeent yoon peese ko poids ba mu lay jox du bokk bu doon bokk du bokk bu doon ñebe du bokk bu doon dugub walla ndawal bu dee ceeb yi sax poids yi mën nañoo bañ a tolloo ceeb bi bàyyi koo risaatol bokkewul ak ceeb bi bàyyi koo Thaïlande wala beneen réew boo tibboon sa ñeenti loxo peese ko bii mën naa yem ci ñaari kilo bii ëpp ko tuuti bii manqué ko tuuti kon dëgg-dëgg murum koor du loo xam ne dañ koy nattale ci peese ndax luy nit di tibb ci loxoom la te diisaayu ñam yi tolloowuñu kon kenn du ko tënk ci nàngami kilo la lu mat a bàyyi xel la Euh, saax boobu nag ñam wu mën a doon rek ci saax moom la la lañ koy génnee ndax moom la yonent bi sallallahu alayhi wa woon waaye ci njàmbaarte ak farlu saxaaba yi ak bëgg diini ji lépp leer yonent bi bi mu nattee murum kooram muy ñeenti mudd euh, sayyiduna Zayd ibnu Saabit dafa wut benn pot natt ko ci ba mu yem ci pot bi saxaaba yu bari wut pot bu toll noonu natt ko ci denc pot yooyu di ko génnee murum koor muy potu saax pot yooyu alhamdulilah rabbil alamin ba léegi ba léegi mi ngi mi ngi tasaaroo ci àdduna am ci pot yoo xam ne sax dañoo am sanat na boroom xam-xam yoo xam ne saa yi ñuy nattee xam nañ kañ koo jëlee kooka kan la jële kooka kan la jëlee bañ delloo ko ci potu Sayyid Musaa bi booba nga xam ne moo dellu woon ci ñeenti loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lu am solo la loolu mooy tolluwaayu muurum koor ci suñ jamono ji nag laaj buy faral di wëndeelu ndax Euh, ceeb bi nga war a joxe wala ñebbe wala dugub wala ndawal gi nga war a joxe murum koor mën ngaa xayma ne nangam la war a jar nga joxe njëgg tontu lii mooy loolu ab wuute la ci diggante boroom xam-xam yi wuute bu yaatu imaam Malik radiyallahu anhu ak imaam Abu Hanifa euh, déet imaam Malik ak imaam Shafii ak imaam Ahmad ibnu Hanbal boroom ñetti ngir yii ak imam ibnu Hazm nga xam ne moom it boroom ngir la mu nangu ci madaahibu ahli sunna wal jamaa ñoom dañoo wax ne kenn du xayma di joxe njëg ñam wa ñuy dundee ci ngay joxe muurum koor kenn sañu koo xayma loolu mooy waxi imaam Malik ji gën a siiw jugee ci moom mooy wax waxi imaam Shafii mooy wax waxi imaam Ahmad ibnu Hanbal ak yeneen borom xam-xam yu bari ndax dañoo dellu rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam defoon ak lam waxoon. lam tuddoon yépp génnul ay ñam lam doon joxe it mooy ñam ñu yem ca am yeneen i boroom xam-xam yu wuute ak ñoom ku mel ni imaam Abu Xanifa moom nee na mën nañoo joxe njëg gi mën nañoo xayma murum koor euh, lii laa war a joxe nangam la war a jar wala ku doon jaay jumtukaay bii war naa tollook moom nga joxe loola mu wecc ko euh, ñu bëri na dañuy jàpp ne Abu Xanifa rek moo wax loolu waaye déedéet loolu waxi Abu Xanifa la. wax waxi ay boroomi xam-xam yu bari la ci taabiin yi ba ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim boo delloo ci yi fiq yi tudd nañ ci ñu bari ñoo xam ne daanañ génnee murum koor ci xayma rawat na ci taabiin yi ku mel ni ata ibnu abi rabax ku mel ni omar ibnu abdul aziz bokk nañ ci ñi gën a siiw euh, imaam ahmad laaj nañ ko mu ne murum koor kenn du joxe xayma bi faw nga joxe ñam ñu ne ko omar ibnu abdul aziz da daan joxe ñam da daan joxe xayma bi njëg gi mu ne waaw waaye man li ma wax mooy wax waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon Omar ibn Abdul Aziz ku mel ni Taawus Taawus ibnu Kaysaan euh, Awzaa'i Sufyaan Sawri Isaaq ibnu Rahaway yi ñii ñëpp di ay borom xam-xam yu mag yu nangul seen xam-xam ak seen wàccuwaay ci lislaam nee nañ mën nañoo joxe euh, muurum koor joxe joxe xayma ba ba tey ñu bari dañ jàpp ne bu dee mazhabu Maalik benn waxa fi nekk mooy kenn du joxe xayma ci azakay murub koor faw nga joxe ñam waaye demewul noonu imaam Malik loolu mooy waxam boo demee ci al mudawana loola nga fay fekk waaye lenn ci ay taalibeem ku mel ni ibnu Habib ku mel ni imaam Asbax ku mel ni ibnu Abi Xaazim ku mel ni ibnu Wahb ñoom ay taalibe imaam Malik lañ Isa ibnu Dinaar di taalibe ibnul Qaasim nii taalibe bu mag ci imaam Malik ñoom ñëpp nee nañ mën nañoo joxe xayma ci azakay murum koor boo demee ci alkaafi ibnu abdul bar sax moom dafa indi benn nettali boo xam ne ji ñu ngi ko jëlee ci imaam malik mu nangu joxe azakay murum koor ci xayma naka noonu boo demee ci al qurtubi al mufassirul maliki wala assaawi boroom xaasee bu mag boobu ci tafsirul jalaalayn ñoom ñëpp ay maaliki yoon lañ te dañoo wax ne azakay murum koor mën nañ koo joxe ci xayma bi kon doon gi nga doon ab maalik yi tënku gi nga tënku ci mazhab imaam maalik du la tënk ne faw nga joxe ñam wi ndax ay kàngam ngi nii yoo xam ne seeni wax lu ñuy nangu la lu ñuy bàyyi xel la ci mazhab bi te nangu nañ joxe azakay murum koor ci xayma bi loolu yaakaar naa ne moom it lu mat a bàyyi xel la azakay murum koor nag ginnaaw bi ñu xamee ne farata bu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam farataal xam ne ci fan bi mujj ci weeru koor weeru koor jeex na jant sona foofa lay ware bu fajar xaree balaa nga dem ci jullekaay ba foofa nga koy joxe mooy li gën donte bu la neex ay jiital ko benn fan ñaari fan ñett ndax am nañu ko wax te man xallada aalima laqiya allaha saalima xam ñan lañ ñan ñoo koy génnee te mooy bépp jullit jullit bu ko man rek génnee ko jullit bu ko mënut lislaam boole naa boole na laa koo xam ne bu la ko mënalee moo la koy génneel léegi ñu ñëw ci buñ ko génnee kan lañ koy jox mooy jullit boo xam ne asgor la te faqir la ku ku xaajoo woon dimbal la azaka alxuraan tuddoon nañu juróom-ñett ñoo xam ne daañu leen jox azaka waaye azaka yi murum koor moom féeg ñi ngi gis jullit boo xam ne faqir la moom lañ koy jox kenn du ko fi bàyyi di ko joxe kuy jihaad kuy tukkee yeneen yu nirow yooyu na ko borom ibnu ashar waxe woon li li tuux ni xurran musliman fil mi maanaam azakay murum koor duñ ko jox ab jaam ndax xam nga jaam dundal boppam da koo waru ab sangam moo ko war a dundal moo ko war a defal lépp lu mënta ñàkk rawat na suñ jamono ji nga xam ne daanaka jaam bi tax sharia naan jaam moom amatul wala xamatuñ ko kon nañ jàpp ne azakay murum koor ki ñu koy jox mooy ab jullit bu dee ab yéeféer waxoon nañ ko ci benn jotaay fii yéeféer bi boo amee alal jooy maye wala looy saraxe doo xam du la lu la war yaa coobarewu di ko joxe mën nga koo jox waaye loo xam ne nag farata la ci yow lu mel ni zakatul fitri wala kafaara gu la war wala azaka jooy génnee sañoo koo jox ku dul ab jullit kon muurum koor kan lañ koy jox mooy jullit boo xam ne faqiir la mën naa doon góor mën naa doon jigéen mën naa doon ndaw mën naa doon mag buñ delloo ci téere bu mel ni ashalul masarik nga xam ne fiq lu tax mu am solo la ñuy jàng ak di ko wax di ko jëlee ci alquran ci alquran di géej gu yaatu di ko jëlee ci biir sunna muy géej gu rëy goo xam ne dugg ca ba génn xam la nga ca war a jël ak naka nga koy jëlee yombul fuqahaa yi nag ñoom dañu lay wuutu ci liggéey boobu demal la ci alxuraan ak sunna seggal la tënkal la lépp indil la moo tax ashalul masaalik li ñuy wax ni yépp moom dakoo tënk ci ñetti bay ne wa awjabu aydan zakatal fitrati bokk na ci yi war yi nga xam ne dafa war ci jullit mooy azakay muurum koor kon dafa war loo ko waral sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa qadruha saaun qadruha mooy kemam tolluwaayam saax lay doon arbaatu am daat ñeenti mudd ci muddum yonent ba sallallahu alayhi wa moo tax mu ne wa qadruha saaun bi fardi sunnati farata la boo xam ne sunnati yonent bi moo ko farataal ci xeet bi ci lan lañ koy génnee mu ne min xaalibil xuuti min xaalibil xuuti la gën a bëri ci la dundee kan la war alal mukallafi mukallaf mi moo koy génnee moo koy génneel boppam dana ko wax ci bind bi ci topp wallam tafut loolu ñëwuñ ci woon waaye koo xam ne azakay mburum koor jot na fekk yaa ngi dund nga war koo génnee ndax man nga ko xëy na ñàkk xam wala càggante wala fàtte moo la jàppoon ba génnewoo ko taxul mu faat la yow ma ko génnewul woon daaw ak daaw jéeg ak fukki at ba léegi mi ngi tegu ci saw lootu wàccut la kon walam tafut waxtoom weesu na du tax mu wàcc la lu dul ki nga xam ne asakay muurum koor jot na waaye dafa ñàkk amul dara lu mu ko génnee ba waxtoom weesu te mooy sow jant ci bésu iid ba kooku moom fayaat ko waru ko muurum koor moom wàcc na ko kon bu ñuy wax ne jamonoom du weesu mooy yow mi nga xam ne jamonoom fekkoon na la nga man ko danga koo génnul woon imma ngir danga koo fàtte wala càggante la jàpp wala ñàkk xam wala yaa xam ne lu ko teewoon a génne mu tafut wa ajzaat bi salafi salaf mooy leb bu fekkee waxtu murum koor jot na amoo loo joxe waaye gis nga ku lebal te yaakaar nga lool ne da nga ko fay am nga loo ko fayee wala balaa yàgg nga am loo ko fayee nga leb ko joxe ko ba tey def na def nga lu baax donte boroom xam-xam yu bari nag wax nañ ne comme jamonoom jot na amoo ko sharia tegul la ne la demal nga lebi joxe waaye boo yaakaaree fay gi nag Euh, nga nga leb ko joxe lu am solo lay doon wa ajza doy na bi salaf euh, kon wa awjabu aydan zakatal fitri wa awjabu aydan zakatal fitrati wa qadruha saaun bi fardi sunnati min gaalibil quuti ala almukallafi walam tafut wa ajzaat bi salafi an nafsihi waxoon na ala mukallaf yi moo koy génnee an nafsihi moo koy génneel boppam aw man lu zu man at'ama moo koy génneel képp koo xam ne moo koy dundal te dundal ko doon lu ko war koo xam ne sharia moo waral ci yow ne yaa ko war dundal la ci jiitu mooy sa soxna say doom say wayjur yoo xam ne dañoo néew doole say jaam ca ba jaam jaam kan lañ koy jox tuuta ila xurrin faqirin muslima kañ koy jox as lay doon kenn du ko jox ab jaam Euh, faqir lañ koy jox duñ ko jox ku woomal waaye kiñ koy jox jullit lay doon duñ ko jox ku dul jullit ndax ni nga ko xamee bésu iid day bisu feet lislaam bëgg bésu feet bi jullit ñépp maase di dund ci feet ñi néewoon doole nañ leen jox azakay murum koor lu leen doy ba duñ génn ci bisu feet bi di laaj wala ñuy dund ci anam yu metti yu jafe ci bés boo xam ne bésu feet la kon lu am solo la waaye lu mat a bàyyi xel la ndax dafa bokk ci ay njariñam waxoon nañ ko jullit wala nit ci boppam yàlla da koo bindee ak gàttañ lu ci lu bari def mbir ca nam ko war a defee ak nam ko mënee def jox ko xàqam ba mat loolu yombut doomu aadama loolu tax yàlla ubbil ñu bunti naafila yu bari bala ngaa julli farata yu bari da da ngay naafila ngir waajal farata gi waaye boo jullee ba noppi it naafilawaat ngir mën a mott li manqué yi ci bu dee manqué manqué yi am na ci loolu it kadalika boo wooree lu toll ni weeru koor muy weer wu màgg weeru jaamu yàlla weeru yiw ngëneel yu bari nekk ci te doomu aadama legle mu gàttañ lu léeg mu sàggan léeg mu xaw a néew doole di defaat yeneen jaamu yàlla yoo ci tofal lu mel ni zakatul fitri rawat na muy loo xam ne yonent bi moo ko daal ci yow ngir manqué manqué yi amoon ci koor gi mu laabal la ci matalal la ko loolu doy na sëkk ngir ñu xam ahamiyatu zakatul fitri gën koo yittewoo di ko joxe ca waxtoom te di ko jox ñañ ko war a jox kon loolu rek lañ bëggoon a indi ci tomb boobu nga xam ne toll nañ ci jamonoom ni ko sëriñ Bachirou Diatra waxee euh, ñu bëree ngi yittewoo xam lan mooy zakatul fitri ak naka lañ koy génnee buñ ko génnee kañ kañ lañ ko war a jox wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain maaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Souleymane Badiane ci waxtaan wu am solo wi te leer yaakaar naa ñi ñu doon topp ñëpp di ko diglu euh, xam nañ ne waxtaan wi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe njortu ndax leeral na ko ci anamin woo xamante ne bii moom lañ soxla ci lislaam mooy delluwaat ci cëslaa yi te mooy alquran ak sunna delluwaat ci borom xam-xam yi gëstu gëstu bu leer boo xamante ni bi boo dikkee da nga wax lu leer loo xam ne ay def defe na ak eh, fe def dem demlanteeg du ca am waaye lu leer lay doon te loolu moom nga def ci masala bii kon ñoo ngi lay sant bu baax a baax a baax ci waxtaan wi ci tënk rek ngir fàttali ñi nga xam ne fekki wuñ ko woon wala bàyyi woon xel yenn tomb yi mooy mi ngi doon waxtaanee muurum koor mu waxtaan tomb bu njëkk bi mooy muurum koor kañ lañ ko farataal ci jullit ñi mu wax ñu ne ñi ngi ko farataal ci atum ñaareel bi ci kàddaay gi te at moom yi mooy at mi nga xamante ne bi farata yu bari ci lislaam ci lañ ko farataal ndax xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy nekk màkkatal mukarrama ahkaam yi jëm ci wàllu sharia yi ci bari wàccul woon foofa sunu borom dafa xaar ba mu dem madina ba jullit ñi seen pas-pas dëgër mu tàmbali di wàccee foofa li jëm ci wàllu ahkaam charia yi moo tax lu mel ni julli ak lu mel ni woor ak natt asaka yooyu yëpp ci atum eh, ñaareel bi ci gàddaay gi la la lañ ko farataal mu wax tamit lan mooy atteem atteem mooy farata la wax ci lu am solo mooy ñi nga xamante ne bi dañuy jàpp ne lu alxuraan indiwul rek loola du farata te ñoom dañoo damaa yaakaar ne dañoo gëmul alxuraan ndax alxuraan ku ko gëm war ngaa xam ne sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa moom it lu ñu war a topp la bu fekkee alxuraan ñi ngay woote wet dëgg la ci yow ndax sunu borom tabaraka wa taala la mu wax leer na wa anzalna ilayka zikra li tubayyina linnaasi maa nuzila ilayhim ku gëm loolu war ngaa gëm ne kon yonente bi sallallahu alayhi wa lépp lu mu jàngale te wax ko loola lu ñu war a topp la te moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibnu Omar moo nettali ne yonente bi sallallahu alayhi wa moo farataal ci jullit ñi asakay muurum koor wax lim ba nam toll wax ñañ koy jox ñan lay doon kon loola lu leer la loo xamante ne bii eh, sikki sàkk amatu ca kon loola kenn waru ko eh, nattable kañ lay war tamit digg na ci wala kan lay war te mooy ab jullit boo xamante ne bii am na lu mu dundee ci bisu bisu eid bi lu am na lu mu dundee mook ak njabootam foofu asakay muurum koor dafay wuute ak asaka ji nga xamante ne bii mooy as zakatul amwaal ndax zakatul amwal da ngay am alal ju mat nisaab yoo xamante ni bii bu dee alal la day am at bu dee am mbay la bu ñoree nga génnee ko waaye bu dee sak asakay muurum koor nag ki nga xam ne am na lu mu dundee ci bis bi lu ko doy mook ak njabootam kooka asakay muurum daf koy daal di war kon du ñu wax rek ne day am alal ju bare baree baree bari soog di ko mën a génnee déedéet ki am lu ko doy ci bis bi ak mook njabootam kooku asakay muurum koor daf koo war kon loolu tamit ñu bàyyi ko xel kañ lay war tamit dikk na ci te boroom xam-xam wuute ci wuute bi ñu ci wuute tamit wuute yooyu ak jàppandal la ci diine waaye nag ab jullit li mu war di gën a def mooy saa bu wuute amee muy xool la gën a del xelam ak la gën a wóor wuute nañ ci kañ lay war mu wax ne bu weer yu feeñee ci e, bisum ñaar fukk ak juróom-ñeent wala bu ne buñ demee ba am fan weer yi fan bu weer yu feeñee ñenn ñi wax na ne bu weer yu feeñee rek daal dinay war ñenn ñi ne bu fajar fenkee ci bisub iid bi ci lay war kon wuute yooyu ci am tamit li am solo ci ab jullit mooy muy fexe ba wuute bu amee mu xool la gën wóor la gën a dal xelam mu def ko mooy al axsu bil ahwat te loolu ab principe bu fondamental la ci mazhabu Maalik mooy saa wuute amee daal ngay xool li gën a wóor li gën a dal xel nga def ko loolu tamit lu am solo la ndax njeexitalu wuute bi indi na ko mooy ki jàpp ne bu Euh, weer wi feeñee la daal di war mooy kon bu ko génnee wutoon tamit ba fajar jot bu fekkee ku yàlla dogal mu génn àdduna la war na ko dañ ko ko war a génneel loolu tamit lu jar bàyyi xel la bu fekkee koo xamante ne mi ku gane àdduna la moom it ñu bàyyi xel ne dañ ko ko war a génneel ndax war na ko kon njeexitalu wuute boobu ñu sew sew la boo xam ne ñu bari duñ ci bàyyi xel waaye lu ama am solo la loo cay jàpp daal moo xam da ngay gëm ne war na ci bi jant bi sooyee wala da ngay gëm ne war na ci bi fajar fenkee lu ca am solo mooy nga fexe ba ñaari wuute yooyu nga xool la ca gën a wér la ca gën a wóor nga jàpp ko te mooy nga jàpp ne bu weer yu feeñee rek daal na lay war ndax la tax nga war a jàpp mooy asakay muurum koor ma bi tax eh, bi bi bi yonent bi sallallahu alayhi wax ne moo tax ñu farataal ko mooy ba ci njëkk ngal bi ci njëkk mooy nga laabal sa koor bi ci njëkk bi ci njëkk mooy nga laabal sa koor ci rëcc-rëcc yi nga xamante ne bii moom nga doon def ci biir koor gi ndax kenn ku ne xam na ne woor boo koy def niñ ko diglee mooy da ngay woor bàyyi lekk ak naan waaye da wooral say cër ba sa xalaat sax da ko da nga war a wooral mm. loola nag day lu jafe loo xamante ne bi du ñàkk ay rëcc-rëcc di la ca di la di la di ca am yonent bi sallallahu wax na li tax ñi farataal ko mooy day laabal rëcc-rëcc yooyu yi nga doon def ci biir koor gi ba ca tege doon luy dimbale faqiir ak miskiin yi ñaareelu xekk xikma boobu am solo gi mu am solo mooy tax nga war a gën a jàpp ne saabu weer yu feeñee rek war na la ngir ka nga xamante ne bii yàlla dogal na mu génne àdduna mu génn àdduna nga mën ko ko génneel ngir mën a dimbale ñu ñàkk ñi ngir mën a sàkkuwaale tuyaaba ci ci ci ci ci jamono jooju kon lu am solo la loo xamante ne bii lu ñu war a lu ñu war a bàyyi xel la. kan lañ koy jox tamit wax na ko mooy boo ko génnee bu la waree ba nga génnee ko yow mi nga xamante ne bi yaay mu kallaf yow la war boo koy génnee tamit da nga ko war a génneel képp koo xam ne ak dundam yow la war mooy sa soxna say doom yi nga xamante ne bi mataguñ mu kallaf ak ñi nga xamante ni bi ñoo nag ñoo nekk ci biir kër gi nga jaboote leen la leeral ci tamit lu am solo te muy lu lu ñu war a bàyyi xel mooy ñi nga njaboote ci biir kër gi te seenu dund waru la boo demee ba naraw leen koo génneel nga fexe ba jokkook seeni waajur yam war nga xamal leen ko pour ñu man ñu man ñu man leen koo génneel loolu tamit lu am solo la loo xamante ni bii lu jar lu jar bàyyi xel la lañ cay génnee tamit taxaw na ci li eh, lu maanaam lim biñ ciy génnee mooy tem bi moom it taxaw na ci wax ci wuute yi ci am yépp ndax yonent bi sallallahu alayhi ba muy wax daf ne saa te saa nam ko doon nattee ci ay loxoom la koy nattee nattukaay yooyu nag mag ñi yittewoo gu ñu yittewoo lislaam tax na ñu fexe ba topp sanat bi topp silsila bi ba nattukaay yooyee ñu am ko ca naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam nattee woon fii ci Sénégal koo xam suñu mag ñi néewaa na nga dem ci kër goo xamante ni bi doo fekk mag moom a yor euh, euh, àndaar bi nga xamante ne bi ci la ñuy nattee asakay muurum koor loola la muy firi mooy day wane ne ñoom lislaam daf leen a yitteeloon ba lépp luñ cay def duñ ca duñ ko teg ci sikki sàkk ko teg ci njort waaye dañuy fexe ba am ca lu wóor a wóor a loolu nag ci jamono ji lu jara ja lu jara bàyyi xel la boo demee ba koy génnee ci dund biñ ko war a génnee boo mënee abbu nattukaay boobee mu jaral la ko ndax tàyyeel mooy yóbbu nit ñi ñuy yam ci digga pees yi ci kilo noonu rek waaye boo demee ba mën a am nattukaay bi nga nattu ko ca ba am lu wér mooy li gën mu wax tamit lu wuute yi ci am ci ñi wax ne mën nañ ko génnee ci aw ñam ak ñi nga xam ne wax nañ ne mën nañ koo génnee ci xayma joxe ko ci xaalis loolu lépp wuute li ci lislaam yërmaande la ci jullit ñi ndax ki jàpp na ci aw ñam lañ ko war a génnee ngir sukkandiku ci xadis ba kooka bu ko ci génnee baax na waaye ki ko génnee ci xiima tamit na xam ne teg na ko ci xadis ba ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax dafa leeral maqsad bi tax ñu koy génnee te maqaasidu sharia dafa am solo ci diine mooy sharia li muy yoonal lu ci ëpp la tax mu yoonal ko daf koo leeral te ma bi tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam farataal asakay muurum koor bokk na ca mooy ñu leel miskin yi ca bis bi ba duñ génn di laaj laaji kon maqsad boobu ñu ci sukkandikoo dañuy xam ne kon ñii wax ne ñi génnee ko ci xiima dagan na fu wér a wér lañ ko teg mën nañoo wax sax ne ci xadis lañ ko teg kon wuute yooyu bu amee nañ xam ne lu ca waay def baax na ki ki nga xam ne dafa jàpp ne ci ñàmm lañ ko war a génnee génnee ko lim def baax na bu ko ca bu ko ca kenn sikki sàkkaat ki jàpp na ci alal lañ ko war a génnee te moom génnee ko ca na jàpp na li mu def baax na te teg na ko fu wér a wér ndax ñaar ci ci àdduna ñëpp dëppoo ci dara di ko defandoo du lu yomb te loolu lu am solo la bu ñuy jàppee na ci ñam lañ ko war a génnee génnee ko ci ñam jox faqiir bi am ko ko ko jox ci aw ñam am keneen ko ko jox xaalis moo dajale yépp am ko loolu lu baax lay doon ci moom kon wuute yooyu tamit lu am am solo la loo xamante ni bi du du luy luy luy gaañ kiñ ko war a jox leeral na ko te mooy ab jullit boo xamante ne bi faqiir la moom lañ ko war a jox mu leeral ci tamit lu am solo mooy sunu borom bi muy tudd ñi ñu war a jox asaka daf caa tudd juróom-ñetti xeet yoo xam ne ñoom la ñu war a jox asaka muy asaka ji nga xam ne moom la farataal muy asakay alal waaye ci muurum koor nag boo ñëwee ba kay joxe ñaar ñi sunu borom njëkk a tudd rek ñoom ñooy priorité yi mooy alfaqir wal miskin kon bul xool ñeneen ña te faqir am fi ak miskin même ci asaka ji nga xamante ne bi sax dafa war mooy innama al fuqara innama sadaqatu lil fuqaraa wal masakin uh, wal wal aamilina alayha wal muallafatu qulubuhum ba aaya ba jeex même boo demee ba génnee alal ji yeneen xeet yem tudd li fekk ay fuqaraa ñu ngi fi am ak ay masakin nañ xam ne ñooñu ñooy priorité ndax nit ki bu fekkee amul lu mu dundee nga bëgg a dem wane ne eh, fii sabilillah tabax jàkka ca la bokk nga bëgg a dem tabax jàkka donte am nañu euh, wuute gu ci am sax nga bëgg a dem jël alal ja tabaxee ko jàkka te fi nga war a tabax jàkk ñii war a jullee ci jàkka ji am na ñu ñàkk ñu fa nekk la nga war a xam mooy priorité bi mooy ñu ñàkk ñi kon loolu tamit ñu bàyyi ko xel xam ne bu ñu ko génnee priorité bi mooy ñu jox ko ñi ñàkk te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leeraloon loolu wane ne dañ koo war a jox ñi ñàkk ngir ñu jox leen lu doy ba duñu génn di laaj ci bis boobu kon loolu tamit lu am solo la kon lii daal li muy wane mooy tomb bi tomb bu am solo la boo xamante ne bii day wane lislaam yittewoo gim yittewoo ñi ñàkk alfuqara wal masaakin woo gim leen woo tax na mu teg ay aliyaat ay mécanisme yu bare bare bare yoo xamante ne bi dana tax ñi am di génnee ci seen alal di dimbale ñi ñàkk génnee ga nag des fois daf koy waral comme ni mu waree ci asakay alal yi ak ni mu waree ci euh, asakay muurum koor des fois day doon loo xam ne yaa koy coobarewu comme lu mel ni saraxe ak lu mel ni waqfu bi nga xamante ne bi waxtaane woon nañ ko fi ci boo demee bay kafaara ci kafaara yi nga xamante ne bii eh, leel miskin mën na caa bokk comme lu mel ni eh, boo giñee te la nga giñoon defoo ko wala nga def li ñu tuddee azzihaar wala nga dem ca eh, aji màkk rey loo xamante ne bi da koo rey ci xorom bi teñ tere woon la ko yooyu yëpp dafa bokk ci ay kafaaraam ngay génnee aw ñam di ka leel miskin yi loolu nag la muy wane mooy sunu borom tabaraka wa taala ku yittewoo miskin yi la ku yittewoo faqir yi la kon ñun jullit ñi war nañoo bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax ba fu ñu toll mécanisme yi lislaam teg ngir yittewoo ñi ñàkk ñi bàyyi ko xel eh, ñoo ngi ñaan sunu borom tabaaraka wa taala nangul ñu sunu jaamu yàlla lépp lu ñu def ci koor gi yàlla nañ ko sunu borom tabaaraka wa taala nangul te yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha ba naal yi am yépp mu mën koo mottali kon li ñuy def rek mooy ñu jox sëriñ Moustapha Jatara mi nga xam ne mooy kilifa barab bi. dañu dogal ah jërëjëf sëñ Bassirou xam naa dañuy jukki laaj fi jot a wàcc rek bu ko defee jox sëñ Moustapha mu eggale ñu ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel waxtaan wi di ko topp ci YouTube bi ak WhatsApp bi di ko yónnee seen laaj ñu leen di sant seen leen gërëm naa dañu jukki laaj bi rek Yarawaay TV mu ne bon mi nga xam ne ko yor sa kër jullit nga koy dundal ndax dana sa waxtaan mu warum koor ak liir bi juddu ci fan yu mujj yi alhamdulilah maanaam mindaan mi nga xam ne mi ngi ci sa kër di la liggéeyal nga di ko dundal ci sa biiru njaboot waaye du ab jullit ndax da ko génneel murum koor déedéet murum koor saa bu kenn ci saxaaba yi nettalee ak farataam ni ko yonent bi farataalee da ciy boole minal muslimin xam nga lislaam may na jullit sax mu denc soxna soo xam ne yahudiya la wala nasraaniya soxna soosu doo ko génneel muurum koor kon ki ñu koy génneel faw day doon jullit bu dul jullit kenn du ko génneel ah kii gane àdduna ci fukki fan yi mujj ci koor waaw danañ koo génneel fukki fan yi sax bari na waaye koo xam ne euh, bés bu mujj ci koor gi ginnaaw tàkkusaan la gane àdduna wala timise ngay waaj a jot danañ ko génneel mburum koor wallahu aalam jërëjëf sëñ Souleymane ci tontu bu am solo boobu Moussa Gueye day laaj mu ne naka la ñuy jullee iid maanaam korite ci sa kër euh, salaatul iid ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy naafila la yi nga xam ne naafila la goo xam ne gu gu gu rëy la sunna mu akkada la xam nga julli dafa am ay farat muy julli juróom ak julli jumaa ci ñiñ ko farataal ci ñoom ginnaaw gi mu am ay sunna mu akkada lu mel ni witr waaye ci bunt buntab sunna mu akkada yooyu ci ngay fekk salaatul iid moo xam julli tabaski wala julli korite te niñ koy defee benn la ñaari rakkaa lay doon ci waxtu yoor yoor comme niñ ko xamee mu xaw a wuuteeg tuuti julli yi miinoon ndax ilimaan ak maamum yi dañuy kabar kabaaraat ba muy juróom-ñaari yoon mu door a jàng faatiha ak saar bu demee ci rakkaa ba ca topp it kabaar bu ko yëkkatee ca sujjóot ba sujjóotu ñaareel ba da ciy tegaat yeneen juróomi kabar door a jàng faatiha ak saar lii mbir tey mbir nag mooy yonent bi sallallahu alayhi ak ay saxaabaam ak borom xam yi li jàngale mooy salaatul iid ca mbooloo ma lañ koy defee feet la shiaar la ci shaairul islaam ñëpp génn ak seen yëri yu bees yëri yu rafet ñu xam ne jullit ñi am nañ feet tey euh, bu fekkee ngànt am na comme fii jamono toll am na ñoo xam ne mën naa am duñ mën a julli korite comme nañ ko daan defee ndax mën nañ koo defee ci seeni biir kër am na ay boroomi xam-xam yu koy wax ndax gis nañ ne naafila la julli ñaari ràkk la defee ko ca pénc maag defee ko ci biir kër mën naa nekk waaye lañ gën a tegtaloo mooy xattaa bi ñuy sunnaal la euh, maanaam julli julli ayit boo demoon ca jullikaay ba jóg di julli ji ayit fekk ñu raw la dem nga fekk ilimaan ca rakka bu mujj siggi na ca rukoo bu mujj ba xam nga rawee na la ñaari rakk yëpp waaye du tee bu sëlmalee yow nga julli ñaari rakk yi boo demoon fekk ñu julli ba noppi di xutba sax euh, du tax du tax mu wàcc la bu boobaa nag fuqaaw yi dañuy wax ne la gën mooy nga toog déglu xutba gi ndax xutba gi da daa bokk ci mbir yi bu xutba gi jeexee nga door a jóg julli sa ñaari ràkk comme mën nga koo defee kenn rek mën nga koo defee sa kër am na ñuy wax loolu am na it borom xam ñu jàpp ne. moom daal euh, ni ko lislaam jàngale woon noona bu ngànt amee teggeeku nañu jërul def ci kër wallaahu aalam boo koy defee sa kër it ko daan defee fee rek dara du ca soppeeku jërëjëf suñ Souleymane ci tontu bu am solo boobu kii day laaj mu dafa nekkul Sénégal te mu xool ne heure yi julli yi mook Sénégal daa wuute ndax ñoom seen heure fajal mi ngi nekk trois heures seen suba nekk six heures léegi moom du doon dëppale comme ni ko Sénégal defee jullee toog tolloog fukki minute ak juróom doo ko julliwaat suba muy laaj ba xam loolu baax na ak loo ko ci dimbalee. maanaam day dund ci beneen réew boo xam ne waxtu ya wuute na ak waxtu yi fii ci Sénégal euh, maanaam seen heure fajar mooy doon trois heures ñuy julli suba six heures waaw loolu nag ah, man xamuma lu ko waral dëgg-dëgg moo tax am na yoo xam ne ña koy mën a leeral rek. mooy foofu mu nekk bu dee ay boroomi xam-xam fa te du ñàkk ay boroomi xam-xami lislaam fa wala ñu xam waxtu yaag nam demee ñoo ciy gën a mën a wax li leer waaye li ma mën a leeral fii daal mooy waxtu fajar ak waxtu suba amul benn waxtu bi la fu fajar xare fu fajar jotee mu wóor ne fajar jot na bu la ay julli suba li feek fajar jotul sañoo julli suba damaa xamul nag lan la jublu ci trois heures la fajar bi jot mën naa bu dee ci la ñuy jàpp bàyyi lekk ak naan ci weeru koor yu ni mel euh, six heures la ñuy julli suba diggante boobu soree na lool te li ñu xam daal mooy fu fajar jotee rek képp ku bëgg a woor jàpp jot na waaye ku bëgg a julli it bu la neexee julli suba sa julli weer julli jot na wallaahu alam. jërëjëf sëñ Souleymane ci tontu bu am solo boobu Modou Ndiaye day laaj mu ne ndax mburum koor mën nañ koo joxaat ab association bu tabax juma. Euh, loolu lañ doon wax ci biir waxtaan wi léegi euh, déedéet azaka rawat na azaka yi murum koor li fee yaa ngi dëkk ak jullit yu néew doole aajowoo ndimbal ñoom nga koy jox doo leen fii bàyyi di ko def faneen euh, azaka ji alquran tudd muy azaka yi alal mutlaqan wax ñu juróom-ñett ñañ koy jox azaka jooju sax day ndax mën nañ cee tabax jumaa te gis jullit ñu ko aajowoo loolu loolu loolu lu lu lu laaj la rawat na azakay murum koor kon ci gàttal azakay murum koor yoon bi sallallahu alayhi wasallam da ko da ko sunnaal wax ne unuhum ani sual way néew doole yi nañ leen dimbalee ba duñ jóg di laaj kon jox ko way ñàkk yi bu dee suñu réew yi moom fu fi waay nekk rek yaa ngi fa dëkk ak way néew doole yu xaajowoon dimbal lool waaye way ñàkk yooyu it nag eh, ñu xam ne ak luñ bëgg-bëgg laaj bés bi bésu feet la bu ñu leen joxee loo xam ne mën nañ cee feetu nañ ko doyloo te ànd ak jullit ñi feetu wala suñuy jóg di laaj ci bés bi wallahu alam jërëjëf sëñ Souleymane ci tontu boo am solo boobu naa dañu ñëw ci laaj mujj bi rek mu ne kii laaj bu ne ndax ki joxe muurum koor mën nañ koo joxaat moom it muurum koor waaw euh, sëriñ Bachirou ñëw na ci léegi ci leeral yi azaka danga daan am nisaab wala nga bay mbay mi am num mu toll muy nisaab wala nga am ak jur mu mat nisaab ñu door a sàkku ci yow azaka azaka yi murum koor nag li nga war a dundee ci bisub korite bi boo ko génnee dese dara dara jooja donte matul ñe matul saax da nga ko war a joxe rawat na bu ko matee bu dee am nga ñoo war a génneel ak loo néew néew doole waaye génnee nga li nga war a dundee ci bés bi dese dara man caa génneel sa bopp ak ña nga ko war a génneel da leen koo war a génneel wax nañ ci biir wax ji léegi sax ne bu fekkoon ne amoo ba amoo waaye gis nga ku la lebal te yaakaar nga ne da ko mën a fay ci lu coono lebal nga joxe ko kon dañ lay jox murum koor du tee yow nga joxe ko wallahu alam jërëjëf sëñ Souleymane ci tontu yu am solo yooyu ñu lay sant bu baax di la gërëm ndax kiiru koor gi ñu ngi ànd yow ci waxtaan yu am solo ci yu fasantikoo mm-hmm. lay ñaanal bu baax suñu borom yàgg la fi te wéral la di ñaanal su jaan ñëpp barke suñu Tuubaa naa ko nañu fàttali programme suba bi rek muy njeexital émission bi dañ leen di fàttali dañ leen di fàttali rek suba insha allah rabbi di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor ñu koy ànd ak suñu soxna ci téere bi di masal bu jaan tum tàmbaloon mu koy tëj suba insha allah rabbi njeexital émission yi foofu la yem bu soob yàlla rek bu ko defee mu ñëw insha allah